jërë jëf mbokk émission tour du micro am fi Ousmane Sonko euh, di parti bi di PASTEF député ci assemblée nationale euh, ñu gis ne euh, ci ñaari at wala at yi la ñuy wax na ci koo xam ne moo gën a ci politique bi ndax taxawaayam bi nga xam ne am am tamit lu bees lu mu indi ci débat politique bi moo di discours yi muy toujours c'est par rapport à la gestion du pays ba ñu gis ne c'est des questions intéressantes lay ajouter. wu Ousmane ñu jox la kàddu gi nga nuyoo laata ñuy sóobu ci biir waxtaan. waaw di leen gërëm d'abord Pape Alé ci invitation bi ak ci déplacement bi di nuyu sénégalais yépp di nuyu seen euh, seen téléspectateurs yi. Mhm. di am mbégte toujours def émission ak yéen. Mhm. parce que it ngeen ko waxee ci ñun la nekkee ci yéen moy taxaway bi en tant que journaliste parce que métier bu am solo la pour que sénégalais di am la bonne information. waaw dañuy tambalé Ousmane yow yaa ngi fekk baax Casamance gis nga li fa xew Casamance ñu boom fukki nit ak ñett armée bi intervenir euh, ci foofu ñuy wax ne am na ñu ci jot a jàpp euh, ci wàllu enquête bi gis coowul MFDC tamit di ci wax ak cadre Casamance yi loolu yëpp boo ko doon jàngat. waaw di dooree di naqaru li xew Casamance di ko di ko joytu ci li fa xew ci ay bakkan yu farot muy lu tiis a tiis ci réew mi ndax eh, dañoo commencé woon tàmm akal mi dinaa dellu si ci baat boobu lu am solo la mooy dal gi eh, waaye dama naan toujours benn bakkan bu rot rek dafa mel ni àdduna yëpp a rot nag su dee ay ndaw yoo xam ne dañoo nekkoon ci seen digg doole doon yaakaar ci lépp ci seen i famille ci seen réew ci seen askan waaye yaakaar ci àdduna bi euh, gannaaw loolu nag damay wax toujours ni il faut que ñun sénégalais ñu bañ a nekk ñoo xam ne rek ci émotion rek la ñuy réagir mooy dañuy toog ba dara am rek ñu joytu ko ñaari fan ñetti fan et puis lépp dellu ni mu meloon bu ko defee loolu mën ñu dabaat dabaat ñu dabaat ñu il faut ñuy jàng di analyser lan moo waral lii am. ñu fexe ba loolu nag jóge fi pour lii bañ a amati parce que lu am rek am na lu ko waral mais dañuy seetaan seetaan ba dara am noonu la fi amee woon ci batolo Joola noonu la fi amee woon barki démb ci Medina Gounass wala Bitenti wala yeneen yeneen nga xam ne suñu càggante day indi lu bëri. ba tax euh, bi li amee it tudd nañ ci yu bëree bëri bëri yoo xam ne ñeneen mooy sabab gi waaye li ci gën a fës mooy la nga xam ne euh, richesse sa ci Casamance muy muy àll bi. Mm-hmm. muy garab yi. dafa mel ni loolu ci cause yi la bokk li ci gën a fës mënul justifier nag ñu rotal ay bakkan mënu ko justifier mais dama ne dafa mel ni cause principale bi foofu la jóge ba tax euh, ñun yàgg nañ di alerter nguur gi naan ko attention ci li xew Casamance muy li jëm ci euh, àll bi mais muy li jëm aussi ci zircon bi ñu fay tudd mm-hmm. dem naa ba bind ci question écrite interpellé naa ci à l'Assemblée nationale le ministre ne ko ab zone boo xam ne zone bu sensible la nga xam ne lu suuxatoon problème bi bokk na ci suuf si ñu jàppoon ni dañ koo nangu ci loxo ñenn yóbbu ci loxo ñeneen dëgg la du dëgg mais jàpp loolu bokk na ci mu andi fitna boo xam ne lu ëpp 35 ans tey li ci rot ci bakkan kenn xamul lu mu toll. Mm-hmm. su ñu demee ba ñu ne accalmie am na na ñuy gérer problème mu zone boobu dañ ko war a gérer avec beaucoup de prudence mais ay nit toog fii Ndakaaru seen bureau taal seen climatiseur recevoir un investisseur. bu ñëw yor ay maletam ñu signal ko ne ko demal daggal nañ de fële zircon daggal nañ de fële garab demal dagg lu la neex population yi fa nekk di ko joytu loolu defe naa lu ñu war a moytu la parce que yemul ci Casamance. Mhm. noonu la amee ci fële au nord du pays mais gis nga bi coow li amee au nord du pays dañu deltu gannaaw fi nga demoon def reportage ci dix mille hectares yi ñu joxe woon Dodel mhm. mais bi waa Dodel bañee dañoo dellu gannaaw li tax yooyu su amee fu mel ni Casamance coowul zircon bi am ba tey ñëpp di ci génne ay communiqué ñii naan fitna dina fi juddu ñoom ñu ne forcé tey ñu exploité ko dinañ ko exploité ci doole kon jàmm lu ñuy tabax la te man jàpp naa ni euh, lii li mu wone mooy jusqu'au moment où on parle gouvernement Macky Sall amul plan de sortie définitif de crise parce que interpellé naa à l'Assemblée nationale ne leen gis nga crise su amee day am plan de sortie de crise dimension militaire am dimension sécuritaire am dimension économique am dimension sociale am ci mu nekk plan boo xam ne sax war nañ ko au niveau national toutes les composantes les religieux les les chefs culturels euh, la société civile euh, l'État ñëpp ñu valider plan avec ñi mu concerné parce que sooy c'est les langages yi mu mujjee dégg mhm. man daf ma rassuré ci benn fànn mooy euh, président Macky Sall bi muy wax 31 décembre nos compatriotes du e FDC. nos compatriotes Mais vous vous dit que kenn ci que ñi avez dit d'abord mi ngi wax ci li ñu dit ñun olof la wax pour les ak Sénégal lu leer mm. mais ni dafa comme les sénégalais mm-hmm. ça veut dire qu'il y a un rapprochement des positions mais il faut ñu un plan de sortie de crise te man que plan amut parce que la stratégie du gouvernement c'est faire ba des ñi nga dem yóbbu Italie Synthèse Diop ne da ngay négocier ak ñoom nga def choses nag ba pare di fa dal bu am ñi nekk ci àll bi dañuy ñenn ci ñoom bopp wala ci bëri si ñoom dañuy jot xaalis. Mm-hmm. ba seen yenn problème ñu mun koo régler. du noonu la crise bu mais su un plan de sortie de crise ba nga xam ne ñëpp valider nañ ko lu mel ni su amee de remettre en question le processus de paix mooy même guerre su amee. Mhm. léeg-léeg guerre am entre guerre mondiale wala guerre entre des pays ñu dem ba signer accord de paix signer armistice mais da ngay jékki-jékki dégg des incidents ay accrochages à gauche mais ça ne remet pas en cause fondamentalement le processus parce que le processus est solide. Mhm. mais su dee processus solide même ay bandits même ay bandits yu yu for ay gànnaay dem.

andi fi problème bu dul jeex ba ñu xëy ne jox nañ leen seen indépendance tey ñu ngay reyante entre ñoom. Mm-hmm. Afrique dafa soxla plutôt une agrégation nu ñuy def bu ñu mënul am Afrique yëpp den benn nañu am au moins des ensembles sous-régionaux yu dëgër. zone CDAO par exemple mu doon zone bu dëgër mais daggati daggati daggati ay ay daggati état ki waaye tamit de l'autre côté état bi na gérer cette question là avec beaucoup de responsabilité nañu instaurer la confiance euh, Nous avons instaurer la compréhension qui transcende les différences culturelles bu boobaa dire que nous am paix définitive pour euh, arranger Sénégal parce que la crise nous ne ci que perte wala ñi ci gën a perte mooy Une absolument euh, actualité bi la cérémonie euh, di gis nañ nga dédicace livre pétrole et gaz chronique d'une spoliation duñ dellu si waat ci euh, présentation lu tax nga bind livre beeg yooyu parce que loolu expliqué nga mais suscité na euh, ay réaction de partout dégg naa ku mel ni euh, Morgan par exemple mu ne da nga plagier benn rapportu Petrosen mën nga koy tontu ci loolu. xam nga man ñoom dégluwuma leen parce que faraluma leen déglu parce que malheureusement li ma jàpp mooy ils sont pas au niveau du débat mm. ñun dañoo ñëw ci politique pour yëkkati débat politique bi ñëw ñuy toucher les vrais problèmes du pays waaye suñ koy toucher aussi nañ ko toucher teg ko ci xam-xam teg ko ci ay fait mm-hmm. bi ñu duggee ci politique ba léegi ci loolu la ñu yem ñun dugguñu ci politique pour xasante wala pour ngañante wala yu demee noonu démb am na ab journaliste moo envoyé seen communiqué bi ñu def euh, def ci ay xaste xas ma xas Abdoul Mbaye xas euh, Thierno Alassane Sall waaye doo gis fenn foo xam ne techniquement ci xam-xam wax tontu nañu ci lii ñu bind fii xam nga ko bind deux cent cinquante deux pages mm-hmm. wax li muy wax soo ko bëggee tontu da ngay def ni moom moo tax euh, li ma ëppal solo rek mooy benn ñun pari la woon ni dañuy bind téere bi biñ ko njëkkee bind dañoo taxaw fële ni téere bi dara newu ci téere bi li ci nekk yëpp dara du ci dëgg ba lu jiitu woon loolu déggoon ngeen ay menaces fii. Mhm. ñu nekku ko ci waxati bu joon nekk ko ci waxati ñu tëj la. Mhm. ba ñu dem indi seen saay-saay boobu Frank Timis. mu ñëw fii ne déposé na plainte man plant bi ba léegi def naa lu ëpp at jotaguma. Mhm. benn notification plainte ñun xamoon na ñi diversion la. mais li ci am solo mooy jàpp naa ne ñun suñu objectif ñu ngi koy atteindre mooy dinañu imposer le débat parce que ñoom li ñu bëggoon. mooy def seen i njombe def seen i tooxidooni ci alal réew ba pare fexe ba benn sénégalais du ci wax mhm. ñun nag ñoo leen lool du fi amee ndax Sénégal Macky sal moomu ko Aliou sal moomu ko Aly Ngouille Ndiaye moomu ko Amadou Ba moomu ko keneen keneen moomu ko Ousmane Sonko moomu ko ñoo ko bokk alal gi fi yàlla def kenn ku ne ci ñu da cee am àqam waaye li gën sax li gën a foor mooy ñi ñëwagul sax muy suñuy doom ak suñuy sëtaat dañ ci am seen àq duñu nangu benn groupuscule ñetti nit juróomi nit fukki nit tëju def ci lu leen neex ba pare ne kenn du ci tudd parce que ñoom ñoo yor état kon suñu demee tey ba ñu ne téere bi génn na euh, euh, débat commencé am ñu dañ naan suñu premier objectif atteindre nañ ko te ñaan naa sénégalais bu ne bu ko mën na lire téere bi bu boobaa bu ko liiree dina xam ñoom nag suñ ci bëggee tontu ñaar ba ñett lañu ñu def nañu bind téere ne Ousmane Sonko li mu wax dara du ci dëgg démonter ko mmh. wala nañu accepter yow nga organiser débat mmh. nañu envoyer ñi ñu yaakaar ci ñoom ni am nañu xam-xam ci mbir mi ñu ñëw ñu def débat autorité naa sax ñu andi gouvernement bi yëpp ñu def débat. contre yow kese. contre man ñett ñett ñetteel bi nag mooy mmh. su dee téere bi jàpp nañ ni comme ni ko waxee ko ay contre vérité ci ne. waaye ak nit ñeme nekk sénégalais simple.

ci at yu bëree bëri bëri ndax li ñu xaatim yépp pour ñaar fukki at ak juróom la mhm. ñu mun koo renouveler ci ñaari période yu dix ans dix ans soo ko dajalee yépp muy quarante cinq ans yoo xam ne mën na nekk ci li Macky Sall xaatim tey ci noonu la ñuy gérer suñu pétrole ak suñu gaz loolu musiba la kon yenn réaction yi pour man c'est enfantin euh, dégg naa ku mel ni Serigne Boub di ci wax moom am mus naa dem sa benn plateau waxoon nii mënul defendre intérêt Sénégal ndax yow munoo défendre intérêt Sénégal le matin parce que PCA nga fii euh, euh, euh, l'après-midi nga dem un conseil d'administration La société bi ñu jox bloc pétrolier muy jifeer mhm. kon loolu dafa mënul ñooñu amuñu crédibilité bu ñuy Sénégalais mhm. mais comme nee nañu xam seen xam xam na ci loolu <laughs> man Sénégal bi comparé wala ñu andi ay réponse weddi li ma bind fii. bu ñu yemee ci bind téere rek c'est bien mais suite bi parce que amoon na benn collectif boo leen mettre en place fan ngeen ci toll ci démarche yi ngeen dañ def ak yenn euh, puissance étrangère yi nga xam ne saisir nga leen woon pour euh, li nga xam ne gars yi def nañ ko ci contrat yi ñoom ñu fexe ba jël ci ay mesures. Ah, xam nga euh, premier niveau bi ñu waroon a mën a régler problème bi fii la biir Sénégal hmm. waaye daf fekk Sénégal. am na jafe-jafe bu rëy bi fi nekk mooy ci askanu senegal la dellu askanu senegal dañu war a xam ni yàlla ci boppam du wàcc ñëw defaral ñu senegal yàlla nee na du defaral benn askan lu mu mënal boppam tey ñun ñaa ngi jël ay gaal wala topp désert na dañuy dem Europe Europe dañoo def seeni révolution xeex ak li fa newoon mu mel ni li fa ne ay nit ngànk mbir mi sooy liir ay germinal ak ñoom seen Les gens xew Europe nga xam ni ñu daan naan du pain du pain ak 1789 en France mhm. Amérique dañoo def guerre de sécession def seen guerre d' indépendance buñ ci jógee la ne kenn ku nekk na pour defar réew mi mhm. ñun nag Sénégal dañoo foog ni lu wax ñu ne première réaction bi la Sénégal askan woo xam ne réew ne ñu boole la ci ñaar fukki réew ak juróom yi gën a ndóol ci àdduna njàng maa ngi ci suuf paj maa ngi ci suuf ndaw ñi amuñu liggéey jigéen ñi sonn nañ ñu ne yàlla feeñal na fi loo xam ne defar na réew yu bëri waaye yàq na réew yu bëri muy pétrole ak gaz ay nit mun a ñëw def ci lu leen neex parce que ñoo ñoo ŋànk nguur gi mu am Sénégalais yu jël seen responsabilité wax feeñal génn ay preuve mais loolu askan bi moo waroon génn askan que nous waroon parce que lii su amoon Europe Europe États-Unis développé mais si nous, sommes président jël na fa avion def ci kérosène réew mi dem fu dem sax nit ñi ci de milliards mais kenn ku nekk ngi sa salon première réaction bi foofu la waroon wax toujours ñun ay héros ku ñuy tudd ku ñuy joxañ naan kii jàmbaar la kii borom fit la am réew nit benn du ko defar li ñu soxla mooy li ñu wax conscience citoyenne ñu dem ba kuñ fi falati balaa ngay xaatim dara balaa ngay def dara ci alal réew mi di nga xool gauche xool droite parce que di nga xam ni 14 millions sénégalais ñu ngi lay xool mm-hmm. te dañ laa dañ laa dañ laa jiital kese pour nga gérer dans l' du pays mais tant que conscience citoyenne boobu amul ba nit ñi mën a jóg

une société américaine bo une xam ne ci mhm. wala autorité américaine wala mu concerne sax concerné l'autorité américaine concerné euh, citoyen américain euh, euh, entreprise américaine même sous des contrats qui ci lañ ko la monnaie américaine mhm. le département de la justice bu Amérique une na ni moom a compétence Non, lañ ko Bribery Act li Bribery Act bu Grande-Bretagne noonu lañ ko bindee feneen ak feneen ñu ne kon nañu dem parce que ay société américaine bokk nañ ci mm-hmm. monnaie bi ñu utiliser dollar la ay société britannique bokk nañ ci ñu dem déposer foofu créer benn collectif boo xam ne Alioune Guèye moo ko moo ko coordonné bi nekk États-Unis mais ñu bëree bëri bokk si ci ñoo xam ne ñu ngeen xam la ay autorités politiques ñu ngi si ñoom mm-hmm. Mamadou Lamine Diallo ñoom Abdoul Mbaye ñeneen ak ñeneen waa société civile bi

lu grave grave moo xew ci dossier yi te justice sénégalaise ci boppam moo ci ni dossier bi de nañ ci euh, bi ci Nafi commencé di ci Amérique def fay enquête fi commencé nit ñi man mi nañ ma jamono ngi xam nga man li tax ñu dafa <laughs> na ma dem fa fraude fiscale bi am na la jaar

waxuma track des biens ak acquis parce track des biens acquis ñun ñëpp xam nañu cinéma la ay tappale mais boobaa dinañu dinañu dinañu wax ak dinañu dinañu laaj ak sénégalais yi alors euh, l'actualité c'est l'arrivée aussi de Macron gis nañ nga def ci benn position ne sénégalais yi dañoo war a décoloniser wu mentalement parce que am na opposition boo xam ne mi ngi bëgg a def ay manifestation te bu France waxee ñu ne ingérence dans les affaires intérieures euh, normalement arrivée Macron bi am na ñu bëggoon manifester mooy ñi nga xam ne front anti CFA ak euh, les APE. nan nga jàngate loolu yëpp. waaw ñooñu laay commencé ñooñu moom maa ngi leen di jaajëfal parce que li ma jàpp mooy lenn rek moo jar a manifester ci ñëw Macron su dul loolu ñëw bi amul solo euh, mooy li suñu digganteeg France muy diggante domination. France toog suñu kaw depuis ba mu ñuy traité négrièrement. Mhm. di jaay suñuy mam ba nit ñu coloniser ba tey ñu nekk ci néocolonisation accepté parce que suñuy leader politique ñoo ko accepté. Kagame bi mu jëlee responsabilité am am na yu mu réglé boppam diggante boobu te li ko gën a symboliser bokk na ci koppar gu bon gi ñu yor France teg ñu ko wala ñu nangu ko bokk na ci euh, li ñu imposé te Ablaye bañoon ko maki ñëw signé ko muy accord de partenariat économique muy danger bi gën a rëy bi nga xam ne tey. moo mooy gete Sénégal ak Afrique de l'Ouest de manière générale euh, muy ñoom ni ñuy fexee ba seeni multinational daal di ŋànk suñu économie ba bépp fànn ba pare ñu leen di jox ay gré à gré léeg-léeg sax ñu dàq ay sénégalais fi ñu nekkoon gis nga def nañ ko fii bi ñuy jox trans port bi ak yeneen ak yeneen pour jël ay tubaab teg leen foofu yooyu moo jar a xeex te ñooñu nga tudd noonu loola taxoon ñu bëgg manifester man jàpp naa ni loolu rek a jaroon manifester la ca des nag ñaar ba ñett la bi ci man dama comprendre visite officielle tey euh, Macky day France gis nga le français la du sax ni ñëw France du événement pourquoi suñu vous que Macron day ça ñu dem ne nañu bale yoon yëpp defaraat ko ça veut dire que Macron su ñëwul ñun mun nañ nekk ci mbalit beeg tilim bi su Macron di ñëw la ñuy defar dëkk bi daal di arrêté programme yi classe salle de classe yi sax dem defar ay salle de classe peinturaat ko foofu fu cent élèves doon nekk ñu fexe ba trente élèves nekk fa yóbbu Macron ne ko lii mooy suñu système éducatif ñàkk wekk sa bopp weesuwul loolu beneen bi muy nag dama déglu démb journal euh, Sud FM ñu ñu def benn élément ne ce que les Saint-Louisiens attendent de la venue de Macron ma dig ñi naan waaw école bi ñun loolu lañ ciy xaar Macron ñoom bi parce que école bi ci histoire Saint-Louis la nekk école bi dañ ko war a defaraat lii dañ ko war a defaraat mais c'est extraordinaire c'est-à-dire mu mel ni France et Sénégal benn département outre-mer France ñun on n'est pas encore indépendant dans notre tête ñun Macky Sall la ñu fal jox ko suñu lempo jox ko suñu administration jox ko suñu armée jox ko suñu diplomatie ne ko mën nga lepp ci suñu tour ba pare naan Macron comme mi ngi ñëw nañu defar école bii donc yooyu li muy wane mooy ñun suñu bopp am nañu problème mu euh, benn complexe boo xam ne mu ngi ñuy topp suñu si suñu bopp déjà am na lu des mu des nag li ci des ci politique man dama bokk ci ñu ne du samay problème politique intérieur hmm duma ko dem naan dama koy yoole ci Macron parce que li Sénégalais war a xam Macron yoonam newu ci suñu problème politique Macron tant que ñu ngi koy régleel les intérêts de la France loolu moo leen intéressé te loolu Macky nga koy defaral ba mu baax soo Macron Macron soo ko tegaloon Macky tegal ko Ousmane Sonko wala Abdoulaye wad wala keneen Macky Sall lay tànn kon dem na da ngay manifester parce que la démocratie sénégalaise a reculé parce que élection yi ñu génn baaxul d' abord pour man du c' est pas le problème de Macron parce que problème politique su amee France doo gis acteur politique politique français bi koy ñëw wax Macky mm. mais ensuite euh, c'est se tromper de cible parce que Macron su doon moom mooy voté wala mooy élire dinañ jox Macky Sall 50 50 mandats parce que Macky Sall France fi nekkal lu France bëgg mu defal ko kon kooku pourquoi nous tànn un Ousmane Sonko boo xam ne je revois toutes nos relations avec la France ça va de soi ñoom xam nañ seen bopp ñoom dañu am fulla tubaab yi dañu am fulla xam nañ seen bopp defar nañ seen stratégie soo gisee ñu bëgg ñu signé ñu ñu bëgg ñu dugal ci APE ñoom def nañ seen stratégie sur 40 ans 45 ans yi di ñëw bis bu ñu ratifié APE dans la zone CEDEAO gis nga soo gisee ñoom au champ yooyu ñëw wax naa ko assemblée ñenn ñi ils n'ont pas compris li tax ñu andiwaat seen seen grande surface Total mi commencé woon retiré wu sax ne l'Afrique n'est pas n'est pas le Sénégal n'est pas n'est pas rentable total dellu si na jënd même ay station yu fi newoon mhm. ubbi ay boutique bonjour defaraat ba mu rafet parce que bis bu ñu ratifier les accords de partenariat économique tubaab bi ñoom ñooy defar ci seeni usine mhm. ñoom ñooy transporter andi suñu gars yi doon dem di jënd di ñëw kenn dootu fi jëndeeti bu ñu àndee ñoo koy placer seeni grande surface mhm. jaay donc depuis l'industriel depuis le secteur primaire mooy seen baykat bi bay te ñu ubbi suñu frontière ba suñu baykat mënul compétir ak moom kon suñu mbay dee na seen mbay dox na su bayee ba noppi ñu yóbbu ko usine ñu transformer secteur secondaire bu ñu paree ñoo koy defar seen bateau ak seeni avion andi dugal seen grande surface jaay secteur tertiaire donc il contrôle toute la chaîne ñu ñu nekk de simple consommateur suñu mbay dee na suñu agriculture suñu industrie dee na suñu euh, marché yi sax day tëj gis nga marché yi Sénégal dañu war a xam loolu boutique koñ yi dina tëj. marché dina tëj. mais da ngay dégg ay Sénégal yoo xam dañ la naan. Ah. waaw hmm. ki bu ñu sonal parce que gis nga ñun qualité bi nekk champ nangam nangam xam nga loolu mooy dañ lay sànni benn benn os benn yax nga ciy seeñu doo gis li ne ci gannaaw. Hmm. te loolu suñuy dugg si dañuy def politique dumping parce que boobu ñu ngi installé wu bu ñu demee ba rey tous les autres commerces prix bu leen neex la ñuy qualité bu leen neex la ñuy def hmm. kon intelligence économique La femme solo le tableau amul suñu réew yi réfléchir ci c'est économie interne mais di réfléchir ci a lu mu doxee ci qui économie nga D'accord. Soit fan la sa force war a ak ban projection sur les 5 ans les 10 ans les 40 ans à venir te ce li ko jiitu nag Madame daaneele foofu mm. protéger ton économie gis nga tubaab bi protéger cette économie ba toll fi ñu toll ñu mondialisation libre échange ouverture mais ba tey jii tubaab yaa ngi protéger économie. Hmm. Euh, France Union européenne du du financer agriculture euh, euh, Europe. Amérique duñ ko def li entre Union européenne les États-Unis bëri au niveau de l'OMC parce que ñoom ñëpp ils subventionnent leur agriculture ils mettent des taxes à l'entrée soo bëggoon jël Toyota su bëggoon États-Unis il faut mu fay ay taxes ak ay surtaxes ba il faut qu'ils reste un certain nombre de critères techniques. mais su loolu weesoo dañ ko naan quota lañ lay jox parce que suñ la joxul quota boo moytul general motors léegi mu daanu ñun ñu nekk fii yow sa dara sotteegul sa filière industrielle defaroo ko sa filière hmm. agricole doxul sa filière eh, infrastructurelle doxul sa dara ñëwagul nga naan damay dem libre échange di signer ay accord de partenariat économique moo tax keroog bi ma déggee président Macky Sall patronat bi interpellé ko ci ni muy joxe marché étranger mu ne leen bu ngeen préparé parce que même les Marocains arrivent, les Turcs arrivent, c'est à vous de vous mettre à niveau. J'ai dit, mais tu veux pas Lol, les, les entreprises marocaines, l'État marocain doit leen mm. protéger soutenir les gens, ñu ne xam ngeen lan la Europe mais comme le reste de l'Afrique là ñi ngi nelaw mm. dem leen des parts de marché euh, Hyundai LG Samsung etc., le système des chaebols yi nga xam ne Corée moom lañ defoon état bi yoroon ko à la base. Mm. financé ko ba ñu toll fii ñu toll. ay Renault ak yoon état français moo ne woon ci gannaaw et ba léegi état français moo ne ci gannaaw quelque part kon yow loolu yëpp defagoo ko ñu ne la libre échange xamoo sax luy libre échange nga taxaw devant ton patronat ne leen débrouillez-vous mais alors si vous avez tax la situation économique du pays gars yi a wax y un taux de croissance de 6,7%. on se projette même sur un taux de croissance de 7%. Nous avons maîtrisé les agrégats économiques euh, quand on dresse le portrait de euh, la situation économique du pays tout est au vert yow da d'accord avec approche pourquoi parce que d'abord la croissance elle est mondiale actuellement tendance mondiale hmm, à cause du pétrole. à cause de la conjoncture nga croissance conjoncturelle. Hmm. de croissance en réalité. parce que dafa dépendre sur des sur une conjoncture sur des facteurs très très volatiles. Hmm. bu ci les cours mondiaux ont drastiquement chuté parce que le pétrole c'est autour du pétrole que tout tourne presque en tout cas l'essentiel pétrole il dépasse 120, 130 barils. Les cent mhm. presque à 30 ou 32 ou 32 euh, dollars le baril parce que simplement les américains ont à ça les américains ont contre la Russie parce que la Russie force principale est de contrôler gaz bi produire à certains trucs etc dans le dans le contexte actuel nous avons ak Russie Syrie Russie il fallait nous affaiblir Russie Là, nous avons fait, plus le Venezuela qui leur posait des problèmes ils ont autorisé l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste débat là parce que n'est pas bon pour l'environnement mais ça ça a permis à, aux États-Unis d'être aujourd'hui pratiquement le premier producteur de pétrole au monde les gens ne le savent même pas donc comme tout dépendre tout énormément sur l'importation, me casser, baisser le, baril, le, le, le, le, dollar et immédiatement le, baril suit. C'est pourquoi même l'Arabie Saoudite et Venezuela, ils souffrent actuellement. baril bi baissé première conjoncture il suffit que baril bi à dollars pour qu'on perde un ou deux points de croissance deuxièmement il y a une conjoncture pluviométrie plus ou moins correcte depuis quelques temps mm-hmm. et troisièmement parce que ça c'était, même rapport Banque mondiale on la croissance est là mais c'est une croissance conjoncturelle ñaan la conjoncture internationale bi continuer am stabilité ensuite que plus continuer bas. mais li gën a cocasse dans ça Banque mondiale est là et qu'il n'y ait pas beaucoup de manipulation monétaire mais c'est un langage diplomatique La Banque mondiale bëgg là wax monnaie bi baaxul parce que nous, manipulons manipuler monnaie on n'a pas de politique d'échange mm-hmm. on a une monnaie arrimée à l'euro une politique de change mais li mu leen bëgg wax tant que est en am monnaie bien nga xam ça vous rend non compétitif à l'export parce que nous avons une monnaie pour xam moo ëpp doole suñu économie suñu monnaie pour ëpp doole suñu économie parce que ci monnaie bien qu'on ko monnaie économie forte la ce qui fait que suñu exporter on n'est pas compétitif c'est mm-hmm. une monnaie pour un pays qui qui a opté pour être un pays importateur ce qui veut dire que balance commerciale est déficitaire tout le temps balance de paiement est déficitaire tout le temps moins la croissance mais aujourd'hui dis-moi les pays africain Jaune et zone ils ont projeté une croissance de 7,2 wax ma Bir UEMOA le Mali malgré li le Mali le Mali croissance Burkina croissance euh, Côte d'Ivoire croissance Togo croissance nga amul croissance donc du jambarde particulièrement mais croissance la croissance lan lan moo ne ci croissance bo de ton économie mi ngi entreprise étrangère 82% xamal ni de ta croissance sort du pays. c'est pourquoi dinañu croissance croissance pauvreté tay la gëna fort chômage est devenu fort parce que croissance bu mënul réduire pour pauvreté mënul créer emploi c'est pas une croissance et lool moo xew fii Sénégal deuxièmement 62 de l'économie sénégalaise secteur tertiaire Le secteur tertiaire boobu ñan ñoo ko porté les banques moomuñu yi les assurances moomuñu leen les entreprises de téléphonie moomuñu leen ce qui fait que suñu économie ci boppam moo introverti moi soit des ci pays développés les trois secteurs yi ma cité pays développés secteur tertiaire bi day am doole ba tax légui ñu séndé ko ñaar tertiaire ak parce que dafa dem ba am volume autour de 70%, 63% comme ñun secteur industriel bi téggu ci secteur primaire bi téggu ci mais nous avons dañ ay sociétés c'est des sociétés post industrielles c'est tout à fait normal dañoo def seen révolution industrielle ba après production il faut ñu trouver pour commercialiser ko moo secteur tertiaire bi am doole ñun defaguñu révolution industrielle am secteur tertiaire ça veut dire que on a un problème or le budget du Sénégal réserve 0,97 à l'industrie Assemblée nationale dama ne Amadou jox ma exemple benn réew ci àdduna boo ne développé sans industrie benn mu ne teg di ma ma ne ko lan politique industrielle et dans sa réponse j'avoue qu'il y a un problème avec l'industrie j'ai posé la même question à Boun mu ne non on a des industries Je ne ko wax ma ñan la mu ma ICS ICS mi ngi depuis indépendance <laughs> mu ma Sonacos mi ngi fi depuis indépendance ma ne ko yéen bi ngeen toogee léegi ñaata industrie digne de son nom mo la ñu Sénégal. la sax. waaw même zircon bi ñuy wax or bi bi on exporte brut suñu bàkkoo ni suñu secteur euh, on a fait de bonnes exportations ci trimestre bi xam nga lañ lay wax secteur horticole ak secteur minier mais Sénégal su su demee ba di secteur horticole C'est les fruits ak les légumes nga leen exporter brut tu ne peux même pas transformer au Sénégal defar ay jus de fruits def ci exporter pour pour faire la valeur ajoutée on exporte brut des fruits Dubaï defarul fruit su ñu exporté fruit mu dem foofu ñoom ñu defar ko ay karet ñëw jaay ñu ko fi fruit bi bi ñu jëndee woon cent franc le kilo masalan ñu ñëw jaay ñu ko cinq cent france canette bi mais ñàkk vision boobu ñu foog ni mun nañ développer avec sax man damay jàpp ni tubaab bi sax ñoo leen ni pousse ci loolu parce que su ma toogee ba gis banque mondiale ak FMI France Je Sall présenté PSC. E. ne un plan révolutionnaire Nous ne ñëpp xam ni PSE ça vaut absolument rien une vision La vision développement Sénégal bon, xam accès sur l'industrie et l'agriculture, ce n'est pas une vision PS, e amul dara ci industrie ils vont te parler de up industriel de Diamniadio pour délocaliser des entreprises pour faire du montage ici Nous avons carcasses monter C'est ça l'industrie. ils n'ont aucune vision industrielle tàccu leen ne leen baax na bi ma déggee may sax e, dama ko de bout en bout mais balaa loolu bi ma déggee plan bi c'est dans leur intérêt c'est dans leur boobu laa xam ne plan bi baaxul kon problème la am wax gis il suffit qu'il y ait un choc exogène ci pétrole bi wala ci yeneen matières matière. wala ñu am une mauvaise pluviométrie pour qu'on perde énormément de points de croissance loolu mooy croissance su Macky sur l'endettement parce que coow lu bëri na ci trop. waa xam nga bor ak état ñoo ànd. Mm-hmm. Euh, comme ñoom niñ ko koy waxee état yi dañuy dañuy leb mais bokkuñu. Mm-hmm. bor ak état ñoo ànd parce que dañ ñoo gëmloo ni nos états doivent vivre au-dessus de leurs moyens. ba tax moy da ngay da ngay bëgg réaliser lu rëy rëy rëy te yow say moy permettre la nga réaliser ko même ci nit ñi sax yow da nga bëgg kër gu rafet rafet te yow sa salaire may la nga dem banque ne xaaral ma ñu taxal ma sama kër may fay dank nak état yi ñomit non lañuy doxé et comme on dit peut-être su amé ay état yu amul borit warul bëri mais gis nga état Euh, yi ñuy jël référence ñun da d' abord nañu fàttali ko ñu ñëpp ni état yooyu état yu développé la moo tax UEMOA laa njëkk a amal problème man parce que seen ratio seen critère boobu ñu teg ne 70 pour cent de taux d' endettement man d' accord ma ci parce que 70 pour cent mooy critère union européenne mais ñu nag union européenne bokkuñu hmm. suñuy réew ak seeni réew bokkuñu pour man waruñoo dépasser 50 pour cent de taux d' endettement sur le pays bi muy benn ñaareel ngay leb day fekk yow fi nga bëgg a li tax nga bëgg a leb day fekk lii ay investissement productif la ne leb pour defar benn terre boo xam ne dina la coûté 1200 milliards ak lu ko raw sax bi ma koy doog wax nag dañoo weddi lu ñu wax ko ba may leen du 568 dina mat 1200 ñu weddi léegi après nañ 800 waaye ba mu fedd nii li ma waxoon maa ngi ca ba tey 1200 milliards duñ ko mus a euh, réponse bi ma répondre ñoom bi ma leen bindee dinaa la ko jox après géej gi mun nga ci gis ni dina egg 1200 milliards ngay leb pour def dépense yu mel noonu ci jamono jooju nee naa la amoo industrie amoo éducation nationale amoo santé te radiothérapie rek lu attaque lu ci tegu ñu naan machine baa ngi ñëw machine baa ngi ñëw ay nit di souffrir fii ci cancer ngay leb xaalis pour des dépenses de prestige pour tabax des immeubles à Diamniadio pour que kuy génn ndakaaru rek gis ay immeuble ak verre ñu ne wuu waa jaa ngi liggéey ñoom loolu mooy seen vision ci leb bi donc ñaareel bi mooy loolu fan li ngay leb pour lan la est-ce que pour def des choses productives yoo xam ne li cay génn sax mun na fay bor ba wala est-ce que dangay ngay leb pour def des dépenses politiciennes laa koy tuddee. Hmm. parce que lépp ci réélection la. su ñu nee train bi commencé na daw Sénégalais ni yii gis nga Macky train bi mu def ñu dul comprendre dinañ ne gis nga autorail bi mu def. kii daal nañ ko joxaat beneen mandat ci jamono jooju nit ñi lekkuñu ñu liggéeyuñu ñetteel bi nag mooy balaa ngay leb parce que état dafay doxe ñett ci wàllu financement bu njëkk bi mooy ce qu'on appelle les ressources mooy l'impôt gi ak droit de douane ak yeneen ak yeneen ni le les recettes forestières recettes domaniales ak waaw ñaareel bi mooy bor leb ñetteel bi mooy la monnaie mais comme ñun amuñu politique monétaire ñun France moo yor suñu suñu suñu xaalis mënuñu fixer ay taux de change mënuñu manipuler suñu monnaie en fonction de la conjoncture internationale donc monnaie bi da nga koy teg fële. Mm-hmm. parce que ku yor sa monnaie selon les chocs qui viennent mun nga je je choisis de de jouer sur les taux d'intérêt Voilà, euh, les taux de change voilà nag mais soo yorul sa monnaie mënoo def loolu donc monnaie bi teg nañ ko tegee

li ñuy wax exonération yi wane na ni plus de cinq cent vingt milliards ñu ngi koy ñàkk at wu ne ci exonération xam ne ñoom ñoo ko xaatim jox ko ay multinationales yoo xam ne soxlawuñu ko sax hmm. ñi nga xam ne dañu war a fay l'impôt te def fraude fiscale ñu yónni fa waa l'impôt ñu ñu dem jàppaleen multinationales yu bari nekk fii maa ngi glisse bi fi nekk kii fraude na cinq milliards kii fraude na dix milliards ministre de finance mun a toog ba mu neex ko mu xëy jël bigam ne baal naa leen ko te jamono jooju yow mii munoo rëcc ci lépp weer wu ne suñ lay fay dagg ko boutiquier bii su fayul ñu ñëw ànd ak agent trésor agent impôt ak policier tëj boutique bi keneen ak keneen ñu mun a jël sañ-sañu ay nit jóge fële ñu ñëw jox leen suñuy marché public jox leen suñu économie loolu doyu leen ñu fraude sàcc alalu réew mi si yu gën a garaaw lu mel ni TVA nga jël TVA encaissé ko yow nga dem war a jënd dara. Hmm. ñu ñu mbir mi TVA 18 muy Nous dix 18 ñu waroon ko reverser trésor daal ci tëdd loolu code général des impôts ne c'est passable passible de poursuite pénale dañ la war a tribunal benn nit ñeme jël bigam xaatim ne des ci ay multinationales nga jël lu secteur minier bi yu a garaaw xew ku mel ni Sabodala la exonération fiscale am dafa jeex Aly Ngouille Ndiaye moo signé waat ne ko jusqu'en 2022 jox naa la exonération fiscale te moom du am du woon autorité bu am sañ-sañ parce que code général dafa dafa ne léegi seul le ministère des finances peut accorder des exonérations moom mu nekk comme ministre des mines dem signé convention ne leen jusqu'en 2022 du ngeen fay benn impôt Sénégal ñooñu di jël suñu or di yóbbu yooyu yëpp nga am ko fii dajale ko hmm. muy xaalis bu man nee naa gëm naa ni am nañu capacité mobilisation ressource interne su suñ ma nee administration fiscale yi muy douane muy impôt ñoom ñëpp dañu leen laaj 2200 milliards dama ne ren amoon nañu capacité 4500 milliards ci lu ñu lew nga ne ko fi ñukk di def loo neex ñoo xam luñ ci am ñoom ci suuf mm-hmm. su ma man gëm naa ni li ñuy def yëpp defuñu ko ci ci ci tubaab yi ñoom ñoo ma neex ah c'est que n'avez ko prouvé parce que fu ñuy joxalante fu mais ci ci nga compromettre ba jël avion def ci sa gouvernement yëpp club de Paris pour lebi xaalis ci loo xam ne intérêt say ak say problème au Sénégal man yooyu yëpp moo d'accord ci endettement bi am ay attirer l'attention sur l'endettement mais leen xam nga ci wàllu bor réew mu e-, e-, efféminé kii fiable kenn du la lebal parce que ñoom effet bi mooy mooy clé wu système euh, financier international bi ku ñu ne kii léegi nag dégg naa Amadou Ba mu taxaw assemblée nationale ne way si on était pas si on était pas solvable et crédible kenn duñu lebal léegi sax nit ñi dañuy woo dañu ne kaay la ñu lebal leen ma ne ko waaw <laughs> réew bu fi def groupe pétrole ñu ne la kaay ñu lebal la

ba ñu nekk ci système bi ñu nekk nañu am juste li ñu soxla pour dund waaye bu ñu fël ñoom nag ñuy ñëw jël suñu alal di yóbbu yooyu yëpp bor bi ci la bokk jël suñu ressource ci la bokk nangam nag donc tubaab su ñuy naan la gaawal nga ñëw ma lebal la mais dafa fekk leer na ko boo mënul fay ci sa xaaj nga fay ci sa ressource naturelle mu jeex tak su boobu am suñu corps de contrôle yi yaa ngi tudd léegi na mais depuis un certain temps gis nañu aussi que corps de contrôle vraiment est-ce que ñu ngi jouer rôle parce que par exemple dama doon wax ne su ma déggee ñu ne Karim Wade jël temps ci xaalis ma ne ko pendant combien d'années mais en ce moment ana corps de contrôle yi nga xam ne ñoo war a def seen chambre di càmbar di ko jox nit ñi ñu non xam nga man barki dem dama dama lire benn article ñu naan Macky Sall nee que voilà les corps de contrôle sont professionnels. Hmm. nekkoon nañ fi avant moom dañ fi nekk après moom que nit ñee nekk di discréditer les institutions. <laughs> mais ne ko mais institutions yi soxlaw ñu discuter leen fi mu toll nii institution yi ñooy discuter seen bopp parce que ñi ñi ŋànk institution yi ni ñu comporté woo rek noonu la ñuy xoolee institution yooyu Macky Sall ma fàttali Sénégalais ni ci programme yoonu yokkute mhm. dafa ne woon corps de contrôle yooyu daa leen di dooleel bu ñëwee bokk na ci mesure yi mu leen di dooleel dañ leen di jox autonomie budgétaire mais autonomie d'action également mhm. dem na ba ne sax dina jox corps de contrôle yooyu li ma wax ni yoonu yokkute la du man ne jox possibilité ñuy saisir directement le procureur suñu ñu defee seen rapport pare saisir le procureur et su dee procureur bi traité wul dossier bi dans un délai raisonnable ñoom ñu substitué au procureur pour saisir directement euh, le le le pour aller directement vers le juge mi ngi ci yoonu yokkute ana loolu fi mu ne ni defu ci dara parce que ñoom corps de contrôle yooyu ay moyens kese la yu ñuy utiliser pour faire des pressions sur des adversaires politiques ñi fa newoon di géré ku nekk ñu fexe ba am dossier si yow ne la transhumel wala ñu tëj la ñi fi ñi ñi ñi fi nekk actuellement kuñ ci envoyé corps de contrôle ba ñu jàpp ni gis nañ dara ci yow da ci teg tànkam ne kii nag bokkul ci ñi may trahir ndax am na lu mu ko téye gëmuñu corps de contrôle yooyu Macky Sall ñaata rapport moo nekk ci loo xam te transmettre ko ñaata rapport la transmettre ba pare ñu jox ordre procureur ne ko teg ci sa tànk moo moo tax su ma gisee ñuy acharné wu ci Khalifa Sall te jamono jooju li ñu génn euh, Omar Omar Anne di COUD mais on parle de mille sept cent un milliard sept cent ici mais fële sa ñaata milliards la ñeneen ak ñeneen li xew ci euh, titre Bertin bi te euh, ñoom Mamour Diallo ak ñoom Amadou Ba newoon fa ji gérer gérer gérer ce dossier foncier nga xam ne lu ëpp cinquante milliards yàq nañ ko foofu. port bi li fa li fa li fa li fa li fa li fa li fa Cheikh Kanté def bien que envoyé guñ fi corps de contrôle poste bii li fa xew te mi ngi ci rapport rapport OFNAC bi attiré nañ ci attention euh, yeneen ak yeneen mun nañ fi citer des dizaines de rapports ana rapport yooyu ba ci ñi nga xam ne tey ñi ngi woon ci ancien régime te jege ji ko ñoom Ousmane Ngom ñoom ñoom euh, waajale nu mu tudd euh, Samuel Sarr ak keneen ak keneen am na ay rapport navire Olinda nga xam ne 9 milliards la rapport yaa ngi fii man dama jël rapport yi épluché leen ñoom ñëpp bu ne ma génne dossier yi ne la kii la mu kii la concerné bu dee nag ñu la jege nga jël rapport yi teg ci sa tànk di wër nag adversaire politique fan nga koy jekkoo pour mun koo pour mun koo daaneel kon kooku su ñëwee taxaw fii naan ñu ay gestion sobre et vertu de toute façon li mu def ci pétrole bi wane na ni il n'est ni sobre ni vertueux gëmul loolu kon corps de contrôle yi euh, wax dëgg yàlla c'est pas ni fay liguey ci qui sont en cause. Mm. C'est des gens compétents c'est des gens travailleurs c'est des gens sérieux et bien formés té ñi ngi def sen liguey fu ñu leen quel que soit ki fa ne sais xam ci nguur gi bokk la opposition nañ def sen liguey transmettre mais problème principal bi moy jëlal lu L'IGE, IGE euh, programme am validé par Macky Sall ensuite loi organique de ko créé dafa le président est le seul destinataire des rapports de l'IGE quel que soit le rapport bi Macky Sall lañ koy jox moy xol ndax day transmettre ou de transmettre Mo xam ndax day déclassifier ou déclassifier le problème la soo jëlee Cour des comptes chancellerie la dépendre mooy ministère de la de la justice pour programmation ak yeneen ak yeneen donc corps yooyu amuñu indépendance amuñu autonomie budgétaire kon ku yaakaar ni corps yooyu surtout dans un contexte boo xam

ak la nécessité gis nañ ne y a une plateforme boo leen bëgg def pour assurer la transparence au niveau du processus électoral est-ce que aujourd'hui foog ngeen ne benn acte rek lañ mën a poser pour transparence mu jox une autorité indépendante la gestion des élections waaw man man man dama jàpp ni euh, xel mënul nangu en tout cas nit bokk ci xeex bi ba pare nekk en même temps arbitre bi mhm. loolu xel mënu koo nangu dëgg yàlla ay nit kese lañu surtout nag contexte bi ñu nekk nga xam ne li ma ko waxee rek juróom ñi benn at yu weesu ñoom def nañ fi yoo xam ne leer na ni suñu ñàkkee nguur gi 2019 dina métti euh, ku mel Aly Ngouille Ndiaye nga xam ne li xew ci pétrole bi moom la li xew ci mini yi moom la mënul organiser élection mu jaar yoon Sénégal moo ëpp sax intérêt Macky Sall ñoom ñu toog fi kon li jaadu mooy ay nit su ñu amee suñu jàmmarlooy su dee dañuy dem booy ut ku la ku leen atte il faut ñu dem uti keneen koo xam ne dina dal xelu ñaar ñëpp mu atte mu doon arbitre bi mais ñu am attekat boo xam ne kenn ci ñoom la wala kenn ci ñoom la far kon loolu euh, euh, lu élémentaire la loo xam ne xel mun na ko nangu dans toutes les grandes démocraties doo xam sax kuy organiser élection bi te Sénégal man dafa am dañ naan Sénégal est une grande démocratie mais tey 21e siècle suñu nekkaate ci débat yi. fichier c'est-à-dire Amérique su état élection passée wala France wala c'est-à-dire est-ce que mos nga toog ba ni waa kan mooy organiser élection yi en France. doo dégg sax nit ñi wax ci ñu organiser élection bi doo dégg ñu naan ay fraude am na fii wala lii jaar na wala nangam nangam. Mm-hmm. Voilà, c'est exceptionnel. peut-être euh, Amérique, parce que c'est lié plus au système électoral avec les grands, électeurs, les grands États. Mais d'autres nous contester en réalité, ni organiser l'élection. Nous sommes fort actuellement. C'est une grande démocratie. Macky Sall, si vous avez bopam, il y a il y a l'homme de l'émergence, il y a des immeubles, il y a des terres yaa joxe bourse de sécurité familiale yaa def xama laaj laaj Sénégal fi mu ne nii développé na Sénégalais yi kontaan nañu mais utal un un un un un organe neutre ne ko defal élection yi ma duma gars yi mu leer nañ kooku warul doon coow man de suma suñ doon bëree Pape Alé mu leer ma ni maa la mun foofu ku ñu andi arbitre baax na kon loolu benn la ñaareel bi moom dialogue bi mu wax moom si boppam benn moom gëmul dialogue c'est pas un homme de dialogue Macky Sall xamul dialogue c'est un homme de confrontation et toute sa trajectoire wane na ko toute sa trajectoire loolu la xam bi muy nekk PDS li gaa xam ku ma doon wax naan c'était l'elfacho facho du PDS moom moo doon toujours jiitu ne nañu dal ci diw nañu encourager diw moo doon dem lire les rapports euh, de déclassification ci Idrissa Seck et cetera et cetera moo doon dem forcer bureau de vote ne damay voter en tant que ministre ñëw yoroo kayit en tant que ministre de la république ñu ne la mu yoroo kayit nga damay voté par force kon kooku c' est pas un homme de dialogue te bi mu yoree réew mi ba léegi gis nga ko tëj ñaata nit la fi tëj songaate limogé radié loolu rek la xam kon kooku suñ ñëwee tey naan day dialogue y a deux ans wala un an et demi woote woon na fi dialogue woo nit ñi xawaare pale man bi ma ko waxee laa ne ku fa dem da ngay perte sa temps woo kilifa diine yi woo ay kilifa culture woo homme politique yi nangam nangam ñu fait ko presque trois heures de temps quatre heures de temps RTS di dialogue boobu ñaata commission la ñu ñaata rapport la def folklore la woon rek ci jamono yooju mu divertir nit ñi Karim Wade ñu toogaat bii ci élection législative gis ni li mu ni mën Sénégal par la poigne mooy xoqatal ni gis na ni amut gis na ni mënul tee Sénégalais yi dina am toujours des Sénégalais yu taxaw ci kanam ne ko newoo ci dëgg mu dem gis ni malgré la rétention des cartes de membres malgré les radiations sur le fichier malgré conditions ñu organiser élection yi ba nga xam ne ay bureau de vote yu bëri nit ñi jotuñu voté te du bureau de vote yu baax si ñoom li xew Touba ak feneen ak feneen gis nañ ko malgré xaalis bi ñu xëpp fii di essayer jënd ay conscience 49 la am 50 sax jotu ko. mu ne nag xaaral nelawal gaay yi woote dialogue boo xam ne moom ci gëmu ko pour am joxe ay gage à la communauté internationale ñu ne nit ñi dajewaat nañu ñu ngi waxtaan ak nangam nangam ñun bu ñu ko waxee laa ne balaa sax may xam ñeneen ñi laa ne ñun de bokkuñu si ñun Pastef parce que Macky Sall gëmul dialogue mais suñu naroon dem bay dialogue dafa am des conditions de fond et des conditions de forme hmm. sooy bëggee suñu bëggee dialogue maa yow dañuy waxtaan d' abord ci lan la ñuy dialogue du waay jóg rek ne voilà léegi damay dialogue te ci point bi laa bëgg a dialogue est-ce que ci élection yi rek la ñu war a dialogue est-ce que Sénégal élection rek la population bi seen i yitte de tous les jours Casamance est-ce que laajul dialogue national ñu génne question bi mu bañ a doon benn question tabou parce que li andi aggravé situation mooy dañ ko mës a def question tabou koo wax mu ne la xaw ma lu fa xew secret d'état mais ñun ñëpp la concerné 14 millions de Sénégalais. Mm-hmm. les ressources naturelles yii laajul dialogue man ma ko déggee 31 décembre mu naan day def concertation avec toutes les forces de la, nation après proposer une loi à l'Assemblée nationale pour le pétrole ma ne ko waaye kii moom xanaa xanaa xanaa dafa foog ni ñun def li ngay def ba pare si xaatim li ngay xaatim jaay suñu pétrole bi yëpp doog a jóg nag naan da ngay organiser da ngay def loi loi bi lu muy jëriñ tey suñu voté woon loi bi gën ci loi yi. fi, fi, fii fii ba 25 ans lay mun a appliqué wu minimum ci diggante bi tubaab bi dañu pomper suñu compte suñu pétrole bi dem seen

bu fi amati donc loolu contenu bi dañ ci a mais dafa rek uniquement sur le processus électoral muy un problème ñetteel bi mooy gannaaw bu ñu ba pare d'abord naka la ñuy biir commission nous la sur un point bien précis par exemple une caution lan lañuy lan processus naka ak lan processus pour d'accord nañu consensus

moom proposer qu'elle, société civile proposer qu'elle, opposition proposer qu'elle. ensuite sous loolu yëpp dajee ba ñu d'accord d' un nañ consensus point bu nekk li la ñu d' accord moom engagement d'accord, da koy respecter parce que c'est un consensus national de toutes les forces de la vive de la nation. Mm-hmm. mais su dee dañuy discuter de sur vingt questions ñu avons am nañ consensus Nous disons que nous tànn ci ñaar wala ñett yu ko neex comme nous mu ko defoon ci seen yi ci des mu ça ne m'intéresse pas mais loolu je ban dire,

waaye nag jàpp nañ ni ñu nit du ñu ay ñeexu ñebe yoo xam ne dangay ñëw rek eh, kii ñu soo buggee jalo dialogue bind nga ñu ne da nga bëgg ñu dialogue ci lii ñu nit bind nañ ne ci lii la ñu bëgg ñu dialogue te nii lañ buggee ñu dialogue boo d'accord ñu daje nag pour rapprocher les positions ba jàpp dara wasalaam boo ko d'accordul yow demal def sa dialogue léegi dem na def dialogue am am na ñu ko tontu am na ñu ko tontuwul su dee opposition bi nag man jàpp naa ni. li ëpp doole ci opposition bi demul ci dialogue ba ndax wax dëgg yàlla dialogue goo xam ne groupe bu Khalifa Sall demu ci groupe PDS demu ci et dans une moindre mesure sax parce que gam nga gëm ba sama bopp ak ñooñu waaye man ñun ñi demuñu ci ñoom Abdoul mbay demuñu ci ñeneen ak ñeneen je crois que dialogue boobu soo nee am nga opposition yi am nga ay opposants c'est vrai mais li gën a diis ci opposition demul ci dialogue boobu ban ban valeur ak ban ban ban ban eh, ban impact le dialogue bobu mun am wala résolution té ña fa dem sax bien que is ñoy ñu gëna conciliant mais ña fa dem sax ñom ñëpp a ngi génn benn benn barki dem pire genn na keneen ak keneen genn na ñëpp a ngi gedd bayiko ak dialogue am mom dong def na ni bala ñi genn dialogue bi ñom rek ka fay dess ñom wa APR ak seni allié euh Ousmane Sonko ma ngi lay sante di la gërëm ci euh, léral yu am solo yi nga xamné ni nga ko ci ponku ñu doon waxtané di sante di gërëm bokku téléspectateurs di leen dig dajé ci benen émission inshallah